والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمسينا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا te def si nañ ci tafsir bi ba tey ñu ngi ci aaya 153 ci suuratul an'aam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون فيقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أحسى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يستهزئون قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في Euh, noo ngi bàyyi koo woon ci borom bi subhanahu wa taala di xabaare yoonam wii nga xam ni yonent bi ca doy moom rekk moo ko mën a wane mën caa am jàngat yu doy te boobu li ca doy waar mënul jàngale mënul bind dama romb ñu def dem la ma ne mënu dama taaj bàll ngeen baal ma dama yombar eh, bi bu fekkoon jàngkat yi mu expliqué dinañ ñi ko créé su fekkoon ni liirkat la mu wane yoon wi dinañ ñi xalaatam moo tax bokk na ci keemaan bi yàlla def ci yonante bi boo ko bindaloon turam mënu koo lii même jaaroom liñ ci bind nga xam ne ñetti mbir la muhammad rasulullah mënu koo lii xam na rek loolu lañ ci bind mais mënu koo lii allahu akbar alquran bi li muy réerée boo ko joxoon bu xoolee daanaka moo xamu ci dara waaye li gën a yéeme ñi xam ba léegi ñu ngi wëri waxam te du am contradiction law kaan min indi gayri llah la wajadu fihi ixtilaafan kasiira afalaa yatadabbaruuna alquran kon bokk na ci mucjisatu rasul moom mooy wax luy dund te ba léegi li mu wax ña ko weddi ñu saxal ba léegi ñu ngi dëggal ni huwa rasulullah ci njàngaleem mu leer moomu mu dessiné woon benn autoroute ne ñu mooy yoon bi jëm àjjana ginnaawam nag ku indi beneen yoon ñan la nga créé gàtt ak gudd loo lay wax munoo taawil waxa ba indi lu mel ni Muhammad indi kon noppalul noppalul jaru ko yoon yëpp àjjana la jëm déedéet ki ñu yónni mu rëddoon yoon wi yoon wi effacé wul tilimut yàquwul lëndëmut dañ ko bàyyi mu dem waaye bëgg créer sa mbedd fële ne non yoon yëpp benn la waaye déedéet bu ñëpp yemee am ñu génn seen jëm yoonu yonante bi bu mi demee yoonu Samba Ndiaye wax dëgg yàlla nag kon kenn xamatu ko kon yoon woowu nag seytaane toog ca yoon ba di ko ñaawal toog ca yoon yi bon yi nag di la ko rafetalal waaw léeg-léeg nga wax gaa yi xëy xëy mooy waajo xoolu yonante bi ñu tuddal la yonante bi dara du yëngu ci sa yaram amoo ci benn yëg-yëg war nga yëg ni moom moo def lu mel noona loola mu def nag dalay rafetalal jëf ju bon ngir ëllëg nga ànd ak moom safara moo tax borom bi mu tabaxee àjjana ba pare da koo ñegee naqar naqar la ko ñegee pour nga dem àjjana da ngay yéeg di daanu di fakastalu di wadd di tourné la daloon abu hurayrata radiallahu anhu abu hurayra day ñi assisté ko lu yàgg mu xam ba ximmaliku noppi gaa yi ne dal na nañ leen dem ñëwaat fekk ko muy jooy ñu ne ko maa yëg kii ka yaa Aba Hurayra waaye Abu Hurayra lu lay jooyloo xanaa dangaa ragal dee mu ne déedéet jooyu ma ngir ragal dee waaye abki li qillati zaaji wa tuuli safari li may jooy mooy yóbbal bi moo tuuti te yoon yu gudd loolu laay jooy asiiru asku wa akbu damay yéeg daanu laa adri ayyihima usqat xaw ma ban ci ñaari kër yi la ma yàlla yóbbu loolu may jooy ñun nag moom dañoo assurance Sénégal moom mu xam naa Sénégal moom kenn du dem safara c'est tous les sénégalais rek ilal janna sénégalais du waxtaan sax ba tudd non non non non sëñ bi kàddu na ko pour benn problème lépp a yomb ñun dara jafewul lépp a yomb sëñ bi gàddu na ko point xoola Abu Hurayra ni mel lan lay xamul fan la jëm xamul fan la mooy Abu Hurayra moom mi ñaan jooy ci yonent ba yonent bi ñaanal yaayam yaayam tuub kooku mooy Abu Hurayra jege yonent bi lool jël li yonent bi jàngale mu tasaare ko kooku ngëneel kan moo ko mën a dak te eh, sunu gars yi fii ndeysaan danoo yabaate yabaate ba dañuy jël seen benn cuuj wallahi bu ma waxee sax cuuj yi moom mer quoi dama dañ dañoo toogoon barki dem wax naa ba yàgg ñuy wax ci wàllu góor jigéen benn waaye ne góor jigéen ñi xaj dañ pàcc la subhanallah yéen a ngi toon xaj yi di a ngi toon xaj yi maa ngi toon tuuti da ngay gis seen nasuwaay soo xam ni xamut dara sax jaamu yàlla bu taxawul julli nga rus muy ñëw di fooyee Abu Hurayra ñëw di fooye Abu Bakr di fooyee Umar xam ni ndeysaan yarhamuhullah kooku ku mat a yërëm la Umar ibn ni mu toll ci diine ji nga xamante ne mooy troisième personnalité mooy troisième personnalité toog na ci xilaafaam wa ardah ba ci yàgg Xabbaab ibn al-Art ñëw nuyoo bi mu nuyoo Umar wàcc seesu xilaafa ne ko Xabbaab toogal kenn rek moo la gën a yey fii muy Bilaal donc moo la gën a yey xabaab bi ko xool ba ci yàgg ne ko Umar xanaa da nga fàtt Umar ne mu ne ko islaam moo tax ñu jël jaafi togg ko ba mu xonq cur samp ko ci sama colonne vertébrale bi ba mu jeex dara fay ko lu dul sama graisse ak sama dret Umaru xabtaatan ni fatt xëm wallahi nee na jaasi lañu lakk ba mu xonk jur jam ko ci sama digg yax bi mu naan satatatatatatatatatat subhaanallah sama deret ak sama graisse ñoo mujj a seddal jaasi dara teguma ko ci islam Umar daa jooya jooy lëngu ko humu sahaaba ñooñu kenn warul lu ñoom ñooñu kenn waru leen tudd sax di tudd ñeneen waaw mu ladina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim ñooñu liggéey kenn liggéeyut lu toll noonu yonent bi njàngaleem li tax saxaaba yi mën ci samina wa ataana saxaaba yi amuñu woon xaar de yonent bi nee na bàyyi leen seen sikki mi nga ne noo baal ba ma dem daal ma xalaat ci daal <laughs> loolu loolu moom saxaaba yi amuñu woon ñoom dañoo jàppoon ni waxu yonent bi warul am xalaat te effectivement warul am xalaat waxu yàlla warul am xalaat mais noo ko déggee nu ma ko déggee déggee la laaj ndax nga xam nga tubaab bi dañoo naxa naxa naxa naxa naxa ba léegi lu ñëw rek il faut nga analyser il faut nga analyser quoi léegi da ngay analyser aaya yi analyser hadith yi analyser nangam analyser nangam seeni caaxaan bu ñëwee moom amul analyse te eh, da nga wax aaya ñu ne non non yow bon vraiment yow dafa dépassé quoi yooyu dafa dépassé quoi nga xamante ni àgg na ci mbolu tubaab dem ba yab loola sa borom. ba fowee loola sa yàlla te doo ko gëm doo ko doo ko yëg dem na ba yow miy jàngale fo boobu dana la jàpp en jullit yow mi ñuy jàngal fo boobu dana la jàpp en tant que jullit suñ demee ba jàngalekat bi ñemee taxaw ñemee taxaw ne Dieu est mort avec grand D ñu commencé di ko jéem a analyser nga xam ne këf nañ sa iman ah wala gars yi ko jàngale waaw <laughs> waaw gars yi dañ ko jàngale leneen ñu ne ñu ne nag non boo nee allah du pour mu am problème quoi mais Dieu avec grand D moom mën nañu ko kii quoi man da xamul grand subhanallah sa turu borom nga dem ñu koy fooyee sa borom dee na léegi nag nga bëgg a wax waaw wala déet nga bëgg a nekk ci ñaar yooyu léegi dugal na daal ci ak nasraniya al kubra léegi dillu ci nañ la ci nasraniya te yëgoo ko ndax commencé ngaa toog naan borom bi dee na lan moo tax mu dee pourquoi fii la dugg faa la dugg dina xi jaar fi moo di jaar nga bëgg nekk di lijjanti lu mel noonu ak taamal kubra mooy ka ñu yaakaare woon baax mooy ñëw moom di fooye loolu ka ñu yaakaare woon diine moo tax borom bi ne yonent bi ginnaaw ba nga jàngalee mu leer te li yonent bi jàngale leer na de fukki mbir yi ëpp na benn bu ci nekk dafa bon nga xam ni bokkaale la baaxul lor ñaari wayjur baaxul ray doom njaaloo nguur jigéen benn ci baaxul wàññi natt wàññi peese benn ci baaxul lekk alalu jirim lekk riba def lu bon lekk médd dara baaxu ci bi loolu paree nag borom bi dellu fi yow ci muusa nga xamante ne léegi commandement yi Moussa amoon mu del wattu sa umma borom bi na summa aatayna muusa alkitaaba tamaama muusa nag ñu jox ko téere bi tamaaman muy lu mat sëkk comme nit ñu ko joxee mu mat sëkk yàlla bu yónnee yonent su ko yónnee risaala du ko rey fekk mission jeex moo tax bi yéefar yi bëggee rey yonent bi am ñu ci nar am ni saxaaba yi demoon nañ ba àgg ci nii yenent bi bu génnee mu am ñu ko topp saaba yi bu ne pour lan la ñu ne ko inna naxaafu an yaqtaaluuk dañuy ragal gaa yi yongaan la bett la rey la ndax lu ne ñeme ne saxaaba yi kenn du ñoom demoon na ba jigéen nga xamante ni jigéen benn bis jabaru abu ayuba lu abu ay aw xaw ma umm salama xaw maa ngi jaaw tur la àll ma fàttali ko ci kanam dafa toog benn bi yonente bi nekk néegam ba ci yàgg rek ndaw si ñëw gàddu jaasi taxaw jëkkër ji ne ko pour lan la mën a dama ne taxaw fii ci wetu yonente bi ku ñëw bëgg dal ci kawam ma dagg sa baat ndeysaan yonente bi ree ndeysaan ba muuñ xoola jigéen ñëw taxaw ne day défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon góor ñi kenn waxu leen bugguñu woon lu jege yonent bi foo ko jegee xefe xippi seeni siddit mi ngi commencé taxaw moins d'un rek ñu dóor ñu saxaaba yi yemuñoo kenn ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi nee na jox nañ Moussa téere bu mu mat sëkk nag tàmm ci ban façon lañ ko joxee ala alladi ahsana wa tafsilan li kulli shay jox nañ ko ko ci joxiin bu rafet faram fàcce ko faram fàcce bu leer nañ dara dara lëndëmul téere boobu ñu ko jox moom suñu ba fayam hudan njub la wa rahmatan yërmande la laallahum ndax ñoom bi liqaai rabbihim ca dajeeg seen borom yuminuuna ñu gëm li borom bi bëgg mooy nit ki am ngëm ne bis dana ñëw nga dajeeg yàlla te wallaahi ñun ñépp nag bi sa nga ñëw de soo yëgee soo yëgu soo fàttee soo fàttewlu bal fàtte amul fàtte fàtte loo am mais dee kenn dootu ko fàtte kenn du ko fàtte ndax kenn ku nekk am nga ci yàq wu doy sëkk te dana la ñëwal moo xam mu ñëwal la ci ndaw wala ci jamonoy mag te jamono bi ñu toll nii jamonoy ndaw la gën a bëri borom bi del soo sunna yonente bi wahaada kon nag téere bii di alquran kitaabun téere la ne boo xam ne am dal naa wàccee ko mubaarakun muy lu nu barkeel ba mu wàccee barkeel mujjug jamono day dem ba dootul barkeel moo tax bokk na ci màndargay mujjug jamono zahabul qur'an barki démb doon naa ci def benn dars ci falaax alquran bis dana ñëw mu rocceeku ci dënn dem yoonam guddi lay doon nit ñi dañuy nelaw ku yeewu làmb sa dënn la nga mokkaloon réer la wallahi la laa ilaha xayr nit ñi commencé man de fàtte naa aaya man de sama dënn dara newati man de mënatuma dara ibnu mas'ud nee na waxuma demuk alquran mais walla yusra ala al mushaf téere bi fooy ak mbind mi sax dana ànd ak moom dem dara dootu fi des kon jamono bi nga toll war nga cee góorgóorlu balaa dem nga am ci dara téere bii nag lu ñu barkeel la ndigal ñëw jóge ci yàlla fattabiuhu topp leen téere bii du leen dugal fu leen di indil problème lu leen réer laaj leen ko ko lu ñu leen wax dellu leen ci Qur'an ne li ñu wax ndax dëgg la Qur'an moo lay confirmer wala mu teggil la kon al Qur'an mi fattabiuhu topp leen ko wattaqu te ngeen ragal yàlla gis nga li mu la wax toppal alquran teg ci ragal yàlla nit bu toppee alquran te ragalu yàlla du dem kon teg ci ragal yàlla moo lay dimbale nga mën a topp alquran à la lettre ni mu wàccee ni mu ñëwee nga di ko jéem loolu ci la nit di defaree wallahi ñun ñëpp a ñooyee kenn ku ci nekk am nga àllarba wala dimanche ku ne am na jaar-jaar xataa saxaaba yi am nañ saxaaba yi kenn dong na amul jaar-jaar mel ni yonent bi ci jikko muy Abu Bakar Abu Bakar dong moo musul jaamu xërëm musul fen musul naan sànga moom dong ku moom juum nga ci ak xanaa Abu Talib Ali Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib mën nga ni sansam mooy yonent bee ko yar mais Abu Bakar dafa bañaloon boppam lu bon ci jamono bi islam ñëwagul nee na Aboubacar musul naan sàngara ci jaahiliya ak islam nee na lan moo tax mu bañ sàngara dafa génn ci àll ma koy dox fekk benn waaye bu màndi cabinet ba pare day tibb cabinet yi ci loxoom bu fóonee rek du mooyu wala xaqataay xam nga màndikat lu ne lay mën ndax moom buubu golo benn lañ ba pare tibb googu loxoom di fóon Aboubacar ne lii lan la ñu ne ko dafa màndi Abu Bakar ne lii du ma ko mës def lu bon lii enveloppe personnalité lii moo tax musu ko naan musu ko laal ci dundam musul jaamu xërëm papaam yóbbu na ko Abdullah ibn Abi Quhafa yóbbu na ko ba ci xërëm yi ne ko Abu Bakar ñun banu tey dañoo néew doole loolu moo tax waa Quraysh su faluñ ñu ci dara kon nañu topp suñu yàlla yi jaamu ko kii mooy sa yàlla mooy sama yàlla jaamu ko Abu Bakar bàyyi ba papam génn mu ne yàlla ji damaa xiif doo ma jox ma lekk <laughs> yàlla ji ne jant di ko xool ah jox ma ma lekk damaa xiif damaa mar nee na kenn wuyu ko mu ne yàlla ji man damaa bëgg a toog mu ne jëmm di ko xool nee ma jël xeer ak dammata ne ko yàlla ji mënta faj dara nañ ko damm wala dëgg loolu mooy nit ku ñor léeg-léeg nit yore gàllaaj boo xam ne bu waxtaanoon ak xelam war naa xam ne gàllaat bi diisaay dong la koy yokk diisaay dong la ko yokk léeg-léeg nga gis ku takk loo xamante ni non day toog bu xalaatoon war naa xam ni lii du dara tus du wut ko léeg-léeg ñu jox la gàllaaj yow boo xalaatoon ci li ñu ko ëwee der ba ñu ko ëwee borom dee boo moom njëriñ di ko ko ëwee kenn ko ndeysaan mu ne am na woykat bu mag maa ko defal bayre boo xam ni ku ma ko jox ko ma ne ah góor gi bayre bu ban la mu ne ma jinax bu weex ngay fees àjjuma jël guro bu xonq guro bu weex ci bu tuuti ceeb tuuti xorom tuuti suukar suufu marché suufu robinet suufu teen góor gi daa wax a wax ba pare nag boo koy ñaw da ngay gëmm loolu mooy fi ndox yore puso di ñaw di gëm loolu wóor maa doo tataneef dem faal waaw xam nga loolu loolu day day wax mais mënut a nekk di di ñaw surtout der bu doy ngay ñaw di gëm loolu loolu xam nga dañ lay dofloo ba bëggatul muusi buñ la rombee ne oh ndeysaan yi dof na yi dof na léegi nga ñaw loolu ma bara takk ko nee na boo ko takkee da ngay siiw mën ko wax dëgg yàlla nag yi nga dajale bu ko def war a na nag wax dëgg yàlla oh, war a siiw ginaaw bu weex suufu marché suufu armeel suufu robinet suufu nangam am na yooyu bu la ko njabarkat bi utloo ba pare da nga ko man man li nga wax ni sax dafa may yoo xamante ni daanaka da nga da lay jàpp reetaan dafa lay jàpp ñu ngandal ko lool way kat sangam maa tax mu siiw nangam nangam ma di ko xool di ko xool ba jàgg rek tuuti ma ne ko man li ma jaaxale yow siiwuloo mais nag comme comme xaritu suñu benn papa la ma am kersa su ma ko waxee loolu mën naa mu waxee ko leneen mais lu rek laa ko bëggoon wax dafa am benn benn njuumte bu mu mës def ci jamonoy ndaw benn naar ndeysaan dafa ñëw ci sama papa ne ko mun naa la liggéeyal benn xaatim boo xam ne boo ko liggéeyee loo xool mu bëgg la lu la xool bëgg la dara du la dal sama papa woo ma ñëw mu ne ma naar bii de nee su ma bëggee lu ma bëgg mu defal ma mu doog léegi nag naar bi dafa jaar ma ne ko xool ba jaag ma ne ko mënoo defar sa jaal bi waa ji mer a mer som yow ak sama grand yi ñoom ñëpp lay naan ba papa a ma mais ba jàng sama papa ree ba jàng dem yow yaa saa saa yi moom nee na day defaral ñëpp day mi ngi jàng ñaari ba ñu kanam amu ko xam ah, ah. yoo xamante ni yëfu xale dañ la yàllaa lay may basiira nga mun ciy génne lu ndaw dañ la ciy nax loolu moo tax téere bi borom bi nee na lu ñu barkeel la kon topp ko leen ko mu ne wattaqu te ngeen ragal yàlla gis nga bu ngeen ragalee yàlla laallakum turhamun xam nga ma tax baatu yàlla di indi laalla léeg du la confirmer day bañ nga naagu mais boo ragalee yàlla rek yàlla yërëm la mais bu la nee boo ragalee ma yërëm la nga dem ba ci yàgg commencé gis sa bopp non ruko yi su jori yi may def gars yi kan ko defoon ah, vraiment non doo trente sujjóot nangam loolu la moo tax la àlla la lay wax amaan na ma la ndax li nga def doo ko gis seytaane da lay nax léeg-léeg nga góorgóorlu semaine bi yàlla may la sa iman yokk ngay jóg trois heures di di naafil boo deful ndànk balaa trois heures rek balaa trois jours nga commencé nag bëgg a séentu ñoom Abu Hurayra non non man gars yi maa maa ngi naafila loolu ngay tàmbale doomu aadama taswif daf ko romb ak gis boppam ak yéem boppam ñett yi boo xeex ak moom ba mucc ci xamilun nga rëcc mais bul gis sa bopp na la sa bopp dee wa fi anfusikum afala tubsirun mais saa boo demee bay jaamu yàlla di yëg ni yaa ngi jaamu yàlla pareegoo saa boo demee bay def lu baax di yëg ni def kat lu baax pare pareegoo saa boo demee bay xool kii def lu bon nga di ko xeeb paree parce que kii def lu bon nga di ko xeeb jaaroon nga fa kadalika kuntum min qablu fa na allahu alaykum yàlla la may xéewal rek mais bu la seetaanoon nga mel ni moom waa jii màndi waa jii dox waa jii def lu bon bu la yàlla seetaanoon nga mel ni moom mais yàlla la dimbale xëccal la boppam ba mu la xëccalee boppam nag nga war a am yërmande ci ñeneen ñi moo tax léeg-léeg yërëm bàkkaarkat dina gën sax jaamu yàlla ndax lan moo tax kii di bàkkaar dafa am lu lëndëm ci boppam bis bu leeree du ko def kon ñaanal ko yàlla na la jaral nga sujjóot nga ñaanal ko yàlla waaye kii ni ma ko bañee kii dafa mën a nangam kii du jaamu yàlla kii yow yow ndax xiif wóor na kon ñaanal ko yàlla te tiit moo tax borom bi nee na wattaqu ragal leen laallakum turhamuun ndax yàlla yërëm leen moo gën nag mu ne an taqulu ba ngeen di wax ni innama unzila xamal ni wàcceef na alkitaabu téere bi ala taifatayni ci ñaari mbooloo min qablina la ñu jiitu mel ni yéefar yi lan nga doon bi wàcce nañ ko lu ñu jiitu ñaari mbooloo yi mooy ban yahud ak nasaara téere bi bu ñu ko wàccee ci ñoom mi am na lu ñu wàcce ci ñoom mais dëkk bi ci ñun la ñu yahud am nañu téere nasaara am nañu téere waaye nag ñoom dañoo wax dëgg ba pare dem safara yahud ak nasara dañoo wax dëgg dem safara bokk na ci laaj ya ñu laajoon abul yazid ne ko man alladina sadaqu wa daxalu ljanna wa man alladi wa daxalu nnaar wa man alladina kadabu wa daxalu ljanna mu ne alladina sadaqu wa daxalu nnaar hum lyahudu wannasara kenn ku nekk da nga ne laysat alyahuda ala shay nasara ne laysat nasara ala shay waxum yatluuna alkitaab wax nañ dëgg kenn ku ne newul ci dara kon dëgg la ñu wax mais da leen yóbbu safara mu ne alladina kadabu wa daxalul janna mooy ixwatu yusuf dañoo dugal yusuf lor ko ba pare dem ni papa till boo ko lekk daan loolu du dëgg waaye nag bi ñu jéggaloo yusuf lu mu leen wax laa tasriba aleykum yaxfiru llahu lakum yàlla dana leen jéggal kon loolu moom mooy seen chance kon nag téere bii téere la boo xamante ni fexeel ànd ak moom na nekk sa àndandoo waaye na nekk sa xarit borom bi nee na ñu ne nag wa in kunna doonte sax nekkoon nañ an diraasatim ca seen ak njàng nag la gaafiliina sàgganee ko nag xam nga nag jullit bi nag wax dëgg yàlla waroon naa am jotu jàng leneen lu dul ay bu ci nouveau testament sa téere bi nga am boo ko farataalee dara dara dara du la réer waaye léeg-léeg dégg diw dafa jàng bible bi dafa aay dafa nangam amul intérêt jàngal quran bis boo jàngee quran dégg ko ñaare yépp insha allah yàlla dana la ko daal di leeralal borom bi nee na aw taqulu wala sax aw taqulu wala sax ngeen wax ne an naa ñun ñii kat um la wàccef na alay ñun alkitaabu téere bii su fekkoon ni wàcce nañu téere bii ci ñun lëkkun naa danañu nekk ahdaa di gën a jub minum ci ñoom loolu wax la rek su téere bi ñëwee ma gën a jub kon jéem a jub loola moom mooy lu baax borom bi nee na faqad jaakum dikkal na leen bayyinatun lay yu leer naññ naññ nañ min rabbikum bàyyee ko seen borom lii muhammad indi ànd lii indi ko dara gënu koo leer te da ngeen koo weddi te téere boobu wa hudan njub la wa rahmatun yërmande la kat faman aslamu borom bi ne ana kan moo gën a mën a tooñ mi man ca waaja nga xam ne kaddaba weddina bi ayatillah ci aaya yàlla yi wa sadafa anha mu dummóoyu jullit warul dummóoyu alquran warul dummóoyu sunna bokk na ci nawaqidul islaam mooy nga bañ lu yonent bi indi sikki même boo ko bëggul bu ko bañ yére bu gàtt boo ko bëggul bu ko bañ ndax ki gën ñépp moo ko indi moo ko indi moo ko saxal kon jarul bañ te nag léeg-léeg nit bañ loo xam ne ñàkk a jàngat moo ko ci yóbbu mais su ko jàngatoon xam ne li yonent bi indi mooy njub léeg-léeg mu dal jigéen tàmm kafe jëkkëram sax ba gàttu yéreem mu di ko ca tooñ bu dee kafuk doomu aadama amul problème mais bu dee mbir moo xam ne xaf nga ci jublu sa sikkim bu ngande bi say kii bu ñaaw bi nanga fekk jublu wute leen lu dul xeeb loola su boobaa da lay génn ci islam moytul ndax kat yonent bee ko indi de te bu ñaawoon du ko indi yonent bi dara am ñaaw sallallahu alayhi wa te balaa ngaa xam ni am sikkim mooy nga am ko toppatoo ko xool ki ko amul mbaa ki ko am te di ko dindi ki ko am te di ko dindi xool ko su ngeen yàggee rek différence feeñ nga watkatu sikkim balaa toog wat wataat wataat ay taab ne telli ci kanam ci dootu ci mën dara te gis nga <laughs> lépp a neex a bay ba mu def kawar saa boo bayee mu booy kawar dindil balaa semaine mu ñëwaat léeg-léeg nga wat ba fet mu ñëw ne la kujj di la xoolaat dafa bokk ci sa dund suñ la nee bàyyi ko yokku la ñaawaay ba dana yokku taar te nag dëgg-dëgg li ma waxoon nag dëgg-dëgg kanamu góor warta wéet nag warta wéet mel ni kanamu jigéen jigéen la yàlla bind le xam nooy seet wéet ci boo raayee mu def waaye kanam goo xam ne boo raayee mel ni sa soxna moom loolu moom doxul moom waaw dëgg dëgg dëgg xam ne nit bu ñëwee ci kër gi jaawale soxna si moom dëgg dëgg góor war na kóoru kon amal fi kim ah ci ci loolu laa doon wax nii da gis nga yàlla yàlla ku doy lépp lu yàlla def ne bu ko laal rek boo ko laalee rek ay ay musiba mi ngi ay musiba mi ngi ci moytu lu mel noonu gis nga scientifique yi dañuy wax ni globules yi nekk ci yaramu doomu aadama nga xamante ni ñoom ñooy armée bi nga xamante ñooy xeex ak micro yi taa bu ñu liggéeyee bay wàcc ñu ngi wàcc ci entre gorge bi ba ci sikkim bi foofu la ñuy fanaan foofu la ñuy noppaloo su ñuy départ fa ñuy départ. léegi nag boo tàmbee di ko wat saa boo koy wat dangay ngay ubbi ay trou léegi nag mën na leen créer problème bu leen créer problème ba ñu néew doole feebar bu ñëw mën na toog loolu moo tax bokk na ci danger wat sikkim saa boo koy def nag léegi commencé nga am juróom ba juróom benn mbir nopp yi day tëx watkat sikkim bu yàggee leneen la ko mën a waaw <laughs> nopp yi day tëx bët yi day lëndëm day lëndëm gis nga dëgëj yi day néew daal te góor dëgëj la dëgëj mooy bëñ yi féete nii yi mujj mooy gën a néew doole te góor bu la gën a néew doole loolu foo ak moom duma ko te loolu sikkim moom moo koy téye moo koy may kàttan beneen bi bokk na ci saa booy wat loolu baat bi dafay njattu rangooñ yi dootul segg moo tax da ngay soog gis watkat sikkim bu toogee ñaari yoon bu naaj bi tàngee tuuti rek bët yi commencé jooy bët yi day commencé jooy muy toxoñu di fomp du xam lan moo koy def parce que yan mooy créer lu mel noonu moom mooy moom mooy sikkim bi nga xam ne daf ko tàmm wat loolu moom mooy indi problème kon loolu njëriñ yi ci nekk yépp bu ñu àndee daf lay jëriñ li mu lay jëriñ nag moom mooy sa borom moo ko digle yonent bi ñëw digle ko kon taar la taar beneen bi bu la yonent bi ne sa yére jubluwu ci lenn lu dul dimbale la ndax kat jamono bii ni saabu jafee omo jafe tey xool leen am na ci ñoo xam ne seen yére ni muy buuboo soxna yi dañuy ciipatu ba sonn parce que am na ni muy tilimee bu yàggee nag moom loolu du tilim dand la ko olof di wax yére bu dandee du neex a fete mais gis bu gàttee bu gàttee soxna si bu dugalee ci ndox bu fetee rek mu set xam nga la moo tax topp sunna mooy jàmm boo toppee sunna sa lépp dafay normal yàlla waaye dégg ko gis nga boo ko déggee doo yàq xam nga léeg-léeg nga gis façon yére yoo xam ne dëgg-dëgg sonal jigéen ñi la rek trois morceaux caaya bu toll ni trente mètres ah, mbubu mbubu quatre-vingts mètres grand mbubu cinquante-huit mètres bu mu fees dell mu bëgg faa nekk di fete di ciy poto rek boo solal xamis mbub mu oyof génn dem kenn rawu la kenn gis nga taaru jullit nekkul ci tool bi ci jëmm ji la nekk kon da ngay seetlu gis nga sunna léppam iqtisaad la léppam dafa yem te jàmm rek la lay indil insha allah bokk na ci loola jigéen bu mu ko kafee ba di ko xasee borom këram séeréer gàtt yi sa nangam déedéet xam nga bi yàlla ne góor na tubayam yem ci jàpp gaayam dafa ne jigéen na tub nay sëram dineeku jigéen sëram na dineeku buy dox ci mbedd mes buy julli moo yem yow jigéen jamono bu nekk jàppal ni sa kaw tëstal lu ci góor xool dafa xaraam wallaahi boo dee julli nag yonent bi nee na boo dee julli wàcceel lu tolloog sebre nattal sër bi lu tolloog catu baaraam ba ci sebre wàcce ko lan moo tax pour boo rukoowee ndëkku bi di feeñ am na ci ñun nag ñuy xaw a juum ndax léeg-léeg dañuy jàpp ni digal loolu boo defee kawas ñëw na déedéet kawas mook tànk bi ñoo takkaloo awra benn la benn la boo defee kawas ak boo deful kawas ñoo bokk benn àtte ci domaine boobu kon foofu lañu la sant booy julli nga sa sër wàcc ba buuru ko wee dara du feeñ ñaareel bi fexeel ba booy julli nga julle fu làqatu li gën ci julli jigéen mooy ci néegu biiram lan moo tax moo ëpp sécurité ngelaw du ko fa sërëm du tas dara du ko sonal mu mën a julli ci xel mu dal are waaye boo jullee ci biti wala nga jullee foo xam ne lor taxut su boobaa doo ci am ngërëmal yàlla kon bu fekkee nag ci jàkka la wala ci biti la booy julli sàmmul na nga war a sàmmee loolu boo ko defee nag ki romb jigéen di reetaan ko ndax jilbaabam wala nangam moom it mi ngi xas loo xam ne islaam moo ko santaane kon jullit na moytu yu mel noonu moo tax borom bi ne naan wa hudan téere bi njub la war wa rahmatul yërmande la kon nag ana kan moo gën a mën a tooñ faman aslamu ana kan moo gën a mën a tooñ mim man ca waaja nga xam ne kaddaba weddina bi ayatillah ci aaya yàlla yi wa sadafa mu dummóoyu an ha téere bi dummóoyu téere bi nag weesuwul mënuloo ci daara journaux yépp nga di ko liir xam nga am na nit ñoo xamante ni bu ñu xëyee mboolem lii journaux dañu ko liir am na ñoo xam ne dañoo abonné ay trente six mille ay quatre vingt mille dañuy liir yu Sénégal yi ba génn Sénégal liir yu Europe jot googu ñu am tey ji xoolal xëyun suba teel jàng jus bu am ma moo ko ëppoon tuyaaba mais danga bëgg a codé quoi danga bëgg a bokk da bëgg lépp bon léeg-léeg sax nga gis koo xam ni day jënd titre rek lay xool sànni amal ko benn njëriñ kon lu mel noonu amoon na lu jaadu woon jullit war naa lu ba téere bii nga xaritoog moom alquran foo toll nga di ko ubbi di ko xool mën koo liir mën koo jàng jamono boo jaaxlee kii ko moom mooy alquran mooy xarit bi nga xamante ni waruloo ko du mooy waaye jàng ba la muy rëy rëy ngëm gaa ko gën ndax jàng ko te gëmoo ko amul njëriñ masaluhum ka masali himaar yaxmilu asfara mbaam bu yenu téere amul njëriñ ndax mënu koo liir kon bëri na koo xam ne jàng na mokkal na alquran waaye xamu ca dara parce que bu ko mokkalee te xamu ca amalu ko benn benn njëriñ jëf ga moom moo gën borom bi nee na sa najzi danañu fay alladina gaa ñi nga xam ne yasdifuuna danañu dëddu an ayatina ci suñuy aaya yi su al adaabi mbugal mu bon moo leen di xaar yàlla ci yàlla musal bi maa kaanu te lañ nekkoon yes di fuuna di dummóoyu léegi nag borom bi la yonent bi waaw julli ñi sàggan nañ de hal yanturuuna moo ndax dañuy toog rek di xaar non man fa ma dund cent ans léeg-léeg nga wax nit lu mu war daf mën a noo baal ba ma màgg quoi jeune la booy la loolu wóoru commencé def yoon wi ñëpp àndandoo di dem liir mag ndaw màggat xale ku yàlla soxla da lay yóbbu waxuñ ya kan la àdduna tool la malaaka bi géré toola bi jardinier bi mooy malakul mawt malakul mawt moom seetul garab bu màggat ak bu màggatul dem moom bu xëyee day vérifier tool bi soo nelawee ba yeewu mu ñëw fóon sa ruux bu ko fóonee waruloo dee mu ne la yaab doomu aadama yaa ngi cëppi cëppi ci kaw suuf di reetaan ci kaw suuf bis dana ñëw nga jooy ci biir bàmmeel yaa ngi lekk ci suuf kaw suuf bis dana ñëw sax yi lekk la ci biir bàmmeel yaa ngi daw ci kaw suuf bis dana ñëw ñu takk say tànk dugal la bàmmeel maa ngi dem seeti sa morom wër ñëpp xoolal ni ñaata fii milliards ñoo ne ci àdduna bi malakul mawti bu xëyee ñëpp lay jaar suba ak ngoon ak avant ñuy tëdd su fekkee nag ñu naa journée tey bii kat samedi bii moom allah ji diw warul reer waaw mooy na ndeysaan bu yeboo ñu togg lu ñu neex waaye doo reer yow doo reer buñ la ko leeralal nga teel a góorgóorlu waaye duñ la ko wax toog nag ba 6 heures jot 7 heures jot ndeysaan dafa am suñ benn imam imam bookum alayhi rahmatullah yal ko yàlla yërëm te jéggal ba gaañu àjjuma bële paase gaañu bu daw yaram àjjuma moo jiite jumaa tàkkusaan ñu takk fa sëy moom moo maye sëy bi timis mu ñëw romb jigéen ñi ci koñ de tooñ leen dem jiite timis ñibbi këram gee jot mu jiite gee ba sëlmal assalaamu aleykum ahlu suuf loolu man ndax ko fii la ahlu sunna yam laaju <laughs> dof yooyu mooy la ndax ahlu sunna ma ne ko fii la yam lii mooy xatmul xasan asalaamaaleykum de ñun li jàng ci téere yi mooy mujj gu rafet fii la yem lan la mujj def julli asalaamaaleykum mu gaal kii amati na wax sunna mooy dee lii wallahi mooy dee loolu sans benn sëñ daara dafa bëggoon suuratu yaasin da doon ñaan yàlla ne ko yàlla boo may rey yàlla may jàng yaasin wallahi yàlla may ko rek xel mi ne suuratu yaasin mu toog ci tablier bi nii ne doom ji na ko xaar ci bitig bi mu jàng ubbi téere bi di jàng yaasin dafa jàng yaasin ba ci awalam yara al insaanu anna xalaqnaahu min nutfa ni teg génn teg li gën a garaaw xool leen tablier wéeruwul ci daara noonu mu ne tekk ci téere bi nii dee na kon yàgg bi dafa jaar ne ko papa kii de daa bëgg weccet paa bi ne cel booy bi papa papa ba jàng soxna si daw dafa yow diw yow la diw di waxal laa ko mën a gën loolu mooy mujj bu rafet yàlla ko yàlla may yàlla ñu yàlla may xatmun def bu sa mujj rafetee rek jullit mujj mooy àtteem lay du premier mujj mooy àtteem moo tax olof nee na njëkk fecc taxu la ubab géew mbir mi ci mujj gëla yàlla ñu yàlla rafetal dañoo toog sàggat ñun ñëpp kenn ci ñun bàyyiwul xel dee te yàlla xam na ni suñu ne woon léegi balaa ñoo julli gee moom ku dee ci jàkka ji kenn ko damay du ko jël non xam naa kii la mais la feebar mu baax ma war a def moom moom mel ni rek ndeysaan noonu ñu koy dawee nag noonu la ànd ak ñun dee moom takkandeer a yem xëyee ànd ak sa takkandeer xamal ni dee topp la te boo xëyee xool taxam ne topp la war ngaa xam ne mënoo ci yàlla moo tax benn waaye nee na yàlla dañ ko ne doo dàq sa jaam yi naa ah lu ma la a ngi ànd ak ñoom waaw ku mën a tàqale ko sa taqaleer fu la neex duggal boo mënee tàqale ko moom rek nga rëcc soo ko mënul nag subhanallah borom bi ne daxal yanduruun moo ndax dañuy toog di xaar illa an taatiyahumul malaayika ba te malaaka yi dikkal leen moom daal dañoo bëgg di toog ba malaaka yi ni sëmm war a tukkil àdduna loolu sàggan la aw yaatiya wala dikk baadu ayaati rabbik lenn ci aayay say boroom mu ne yow ma keroog baadu ayaati rabbik yow ma keroog yaati dana dikk aw yaatiya wala dikk rabbuka sa boroom maanaam ngeen xaar ba malaaka yi ñëw wala yàlla ñëw nee na yow ma yaati keroog ba muy dikk baadu aayaati rabbika lenn ci aaya sa borom aaya yooyu nag mooy asraatu saa al kubra mandarga yi bis pénc yi mag yi alhamdulilah yàlla dimbale nañu def nañ ko ba ba presque jeex na tuluu shams min maghribiha xuruju daabba xuruju yajuuj wa majuuj ak masiix dajjal nuzulu isa defe naa def nañ ko naa def nañ ñi bëgg a xam yooyu yëpp defe naa buñ demee ci site bi dinañ ko fekk incha allah yooyu yëpp détaillé nañ ko benn par benn ni muy dikkee nga jàngat adduna buy tukki yan muy ñëw démb bi ma mujj def moom mooy zahabul quran démb lañ ko mujj a def wala jeudi passé laa ko mujj def ci masjidu falaa borom bi nee na di xaar ba aayay borom bi ñëw yow ma yati baadu ayati rabbi keroog ba sa mandargay borom bi dikk ki aayam laa yanfau du jëriñ nafsan bakkan imaanu waa gëmam lam takun amaat fekk gëmul xam nga li mu bëgg a wax li mu bëgg a wax moom mooy xuruju daabba bii la yàlla wax xuruju daabba nag ci mujj jamono lay doon dina fekk mahdi paase daabba génn daaba bi xam ngeen fu muy génnee taxta safaa benn pax bu nekk ci safaa fa lay génne dañuy xëy yor yor daaba bi moog jant bi ñooy ànd bu jant bi ñëwee daaba bee ci topp bu daaba bi ñëwee jant bee ci du ñu rawante 30 minutes du ñu ko rawante yor yor daaba bi ne bu kët génn te keemaan yàlla balaa daaba bee génn Madina dana am ñetti tremblement de terre Madina tu mun ñetti tremblement de terre dana ko am premier tremblement bi bu nee gën-gën yëngatu yaxruju minhu kullu kafir képp ku yéefal di nga génn Madina da nga génn Makka i e daw ñemewuñ ko mu jékki beneen yoon mu yëngatuwaat ñu bon ñi génn mu yëngatuwaat naa fekk génn ña fay def mooy ñi gëm yàlla yàlla ñu ci yàlla bon bu loolu amee nag daaba bi li tax mu doy waar dana wër adduna bi yëpp te ñépp koy dégg dana wax ak ñépp ñépp ñépp daaba bi moom moo gën a garaaw tës waaw te bu ñëwee ñépp koy yëgandoo keemaan lay dikkaale dafa yore ñaari tampon tampon lañ ko mën a tuddee yasimun naas bu ñëwee ki nekk jullit day tamponné sa bakkan jëbi leer nañ tur dootul def ci kaw suuf Muhammad Ibrahima Isa daf fiy jóge yéefar bi mu tamponné bakkan bi mu ñuul kub léegi xam nga ban turay def yaa muslim yaa kaafir yonent bi nee na nit dana waxaale ak nit ci marché ne ko yaa kaafir kam tabiu haada waaw <laughs> eh, yéefar bi looy jaayee lii mu ne la noo yow jullit bi maa ngi koy jaayee deux mille cinq léegi tur amatul yéefar day nangu nekk na yéefar jullit day xam ne nekk na jullit yàlla ñu ko yàlla def ñu nekk jullit bu daaba bi ñëwee lu muy wax ak nit ñi lu muy wax ak nit ñi anna naasa kaanu bi ayatina laa yuqinuun ragal leen yàlla dellu leen ci yàlla dana fekk ngóor jigéen bari mbon am dana dem ba juróom fukki jigéen danañu topp benn góor kenn ku nekk naan ko ñëwal ci man loolu mu dana am dana dem ba benn góor dana mën a sax yore téeméeri jigéen jigéen dana ñëw ne ko amuñu lu ñu lekk dimbale ñu kii ne nekk ma dimbale ma bàyyee naa la sama bopp ñépp bàyyee ko boppam léegi nit ñi nekk ay moykat yu bon bu jàpp bi génnee ne dellu leen ci yàlla ragal leen yàlla addunaa ngi waaj a tukki de su ko waxee jàll na dem yoonam su demee boo moytu bu ñu téenee rek seen jant bi ci kaw muy fenkee fa mu doon sowee loolu la yàlla ba di wax ni saa bu demee ba loolu am keroog ku gëmul woon dootoo gëm jamono bu daaba bii génn laa yanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qable aw kasabat fi imaaniha xayra su fekkuloon nga gëm amatul dellu ginnaaw amatul tourné amatul avancé mbir mi ñëw na daan ba bi misaal na ñëpp ñi war a dem àjjana tàmpale na leen ñi war a dem safara tàmpale na leen borom bi ne na yéen a ngi sàggan di xaar bu leen bis boobu boo bettee lan la fekk ngeen doon xaw ma dégg ngeen wax bi xaw ma cest borom bi daf ñu bëgg a leeral ni nañu gaaw defar suñu gëm gëm balaa daaba bay ñëw ndax bu daaba bi ñëwee dellu ginnaaw amatul rëccu naa ko dellu ginnaaw amatul benn yoon moo tax mu ne yow ma yaat yi ba muy dikk baadu ayaati rabbika lenn ci aaya sa borom laa yanfau du jëriñ nafsan bakkan imaanuha ngëmam lam takun amanat fekk gëmuloon ba pare min qablu aw kasabat wala mu fàggu fii imaane ci ngëmam nga xayran yiw léegi nag yonente bi waxal ak ñoom qul waxal ne leen intadiru mu ñandiku leen toog leen topp leen télé yi topp leen football bi topp leen làmb yi topp leen xew-xew yi bañ leen a jaamu yàlla bàyyi leen jàkka yi bàyyi leen jumaa yi neexu leen ci lu leen neex yaataa yu mbéy leen waaye bu ngeen sàgganee ba mu ni kërëb dellu ginnaaw amatul kon defaru leen balaa loolu leen saa buñ la nee defarul préparé ndax jamono bu nekk xeex mën na la bet kon préparé te la nga war a préparé yépp ndax loolee buy ñëw dana fekk pexe dootul am laa sëriñ wala wali wala xutbu wala taalibe wala lenn lu mu la fekk loolu ak ngëm yàlla keroog dootoo am ngëm yàlla kon jamono bii la ñu war a chargé suñuy pile chargé suñu xol yi def ci ngëm dem jege ji jàkka yi jaamu la jaamu yàlla mbokk yi borom bi nee na léegi nag ma ngay ñëw ci nag ña dàqale diine ji mu ne inna alladina naka gaa ñi nga xam ni farraqu dàqale nañ diinahum seen diine wa kaanu ñu nekk chiyaan ay kuréel mbooloo mbooloo dana dem ba àdduna lépp mbooloo lay doon ñu ngi dund tey léegi jullit laa rek doyatul jullit laa mais fii bokk xam nga jullit laa rek daa doyoon loo doon jullit laa boo ko waxee ku nekk xoolaal dal na ma ci Saalum benn paa laaj ma ne ma ma ne ko muhammad rasulullah mu ne ma noonoo ci tariqa yi laa wax ma ne man xaw ma tariqa xam na baa bi tum mooy léegi xool moo alku fekk nag moom moo alku tariqa gan la gan la saxaaba yi dem nañu àjjana avant tariqa yi ku jàppul ci diw doo dem àjjana waa kon saxaaba yi ñoom fu ñoom ci àjjana royal yi lañ dafa loo xam ne seytaane moo koy def ci jëmmu doomu aadama nit da ñor gis nga mbirum àjjana ak safara yàllaa ko yore mais ñaan ak moom mat dem de ñaan ak moom ñooy dem de boo fi góorgóorlu jaay fi yu amut bari da nga tëral luwaa yu Macky Sall tëralul boo muytul campénal gee ngay fanaan ndax amoo doole kon topp yonent bi sallallahu alayhi dafa gën a leer lépp kuréel nag saa buñ ko créé diine am naqar saa bu mbooloo amee diine am naqar dana dem ba dootuñu jaamu yàlla am yëg-yëg lu dul ci mbooloo lañ koy amee ci mbooloo yi non yow nag di wax dëgg yàlla xamu noonu ci oh non bi ma gisee ci dëgg léegi yow dootoo bëgg nit ngir yàlla mais da koy bëgg ngir association bi ngeen bokk da koy bëgg ngir jamaa bi ngeen bokk da nga koy bëgg ngir tariqa bi ngeen bokk dañ koy bëgg ngir mbooloo yaa xay kon ana bëggil ngir yàlla ayna al xubb wal ixlaas léegi booy bañ nit ki dootoo ko bañ ngir yàlla mais dañ koy bañ parce que bokkul ak man léeg-léeg léegi réew mi da ngay waaru ndeysaan benn waay daf ma mu ne dama wax ak benn kii ne ko doo tafsiru oustaz diw laay day mu ne ko yaa kii kooku kooku salafi la xoolal ma loolu mu yore keesam di déglu tafsir fii la def naa fii la ko nga benn ustaat lay waxal quoi mu la. subhanallah noonu def nag ba léegi kenn ku nekk da ngay ut aw tur tur boobu nag seytaane koy rafetal ba ñu ilzaam ko ci àdduna looy defati ca nga koy jaare léegi nag dootul def def ngir yàlla kese kese kese moo tax borom bi nee na. ña uti mbooloo uti ay kër uti ay bërëb borom bi nee na yonent bi lasta minhum fi shay bokkook ñoom dara ndax dangaa indi muhaajiruun ak ansaar ñoom ñu indi leneen kon bokku ñoo ngi yow dara dara dara ñooñu daal seen mbir boo ci bëggee noppalu innama amruhum seen mbir daal ila laay jëm na fa yàlla summa yunabbi'um yàlla dana leen xabar bima kaanu yafaluuna te lañ doon def jamono bi adduna bi daanaka tasaaroon